mbokk yi nga xam ne yéen ngi topp 24actu point com am nañu tey nag ñu fas yéene ànd ak yéen ci bi nga xam ne euh, jotaay koor la ñu ko tuddee jotaay koor nag nekk jotaay boo xam ne 24actu moo ci weeru koor bi yëpp ngir ñu fas yéene ci ànd ak ci lépp loo xam ne lu baax la ñu daal di koy fësal euh, ni ngeen ko gisee rek fan yi soxna Maam Fatou Kébé ak soxna Astu di ko def lépp rek ñu jëmale ko ci boobule jotaay euh, ñu ciy dalal ñi nga xam ne nag ñoo di jànkat xasida yi ak ñu ni mel tey ji nag ñu fas yéene dalal gan gu mat gan muy sëriñ oustaz Mbaye Mbaye Ndiaye nekk oustaz boo xam ne ràññee nañ ko lool euh, fas yéene ànd ak moom ci lépp loo xam ne nag jëm na ci koor gi waaye laata jotaay bi jeex euh, dina am ay laaj tontu boo xam ne lépp dafay jëm ci koor gi lépp itam jëm ci wàllu diine ñu fas yéene ko ànd ak moom loolee ci kanam tuuti lay doon waaye jotaay bi tey euh, xam naa ne <laughs> dina ma ci gunge mooy soxna Astou la moo bàyyi ko rek mu nuyoo ñu nga xam ne ñoo koy topp ci 24actu point com Astou asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi suivre seen site internet bi di 24actu comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk muy seen émission bi nga xamante ni moo di jotaayu koor comme ni ko El Hadj Ousseynou waxee sànq rek nga xamante ni dañ ciy dalal képp ki nga xamante ni moo di jàngkatu xasida yi ak euh, ñi yëngu ci wàllu diine rawatina suñu ganu tey bu màgg bu sell bi di Oustaz Mbaye Ndiaye ñëpp ràññee ko mu nekk boroom xam-xam bu mag macha allah. xam naa ñu taxawlu foofu ba ci kanam incha allah. Mbaa du li ñu waxal day dëgg da ragal koor gi baat bi daa suufe lool de. man moom ragaluma <laughs> baat bi suufe na de ah. ragaluma ah, mel ni njóobeen yi non damaa ah en tout cas daal Ndiaye tey moom Ndiaye dañu ñëw la seq alors oustaz euh, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di am mbégte vraiment ci sa teewaay fii ci 24 euh, actu yi euh, bii di bu njëkk nga fi teew ñu am mbégte lool ngir seq yow jotaay bu oustaz. jërëjëf. Hmm. auzu billah bismillah inna waliyallah Seydina Ousseynou ñu ngi lay fay. Hmm. di am kontaan bu baax. Hmm. ci jotaay bi nga xam ni eh, naroon ko seq ak yow. nga ci ànd ak euh, sa xarit soxna Astou la mm-hmm. moom itam ña ngi ko ci siyaar baax a baax a baax tey kontaan bu baax nag ci invité ki ngeen invité ci jataayu koor mm-hmm. euh, di rafet lu baax a baax jataay bi ni mu tëddee ndax ña ngi koy bàyyi xel tey jataay la boo xam ni àddina bi yëpp ña ngi koy bàyyi xel di nuyu soxna Ndeye as moom itam bu baax te ko siyaar mm-hmm. euh, te di ko ñaana moom itam sunu borom subhanahu wa taala nangu ko ay jaamu yàlla barke si di ñaanal waa 24 actu yëpp rek. bàyyiwuñu kenn. amiin euh, jërëjëf Astou euh, tey dinañu ànd ak oustaz comme ni ñu ko waxee nuyoo bi am na solo dinañu waxtaanee lépp loo xam ni euh, jëm na ci wàllu koor gi waaye tamit dinañ ko laaj ak tontu dina dox suñu diggante ak moom kon nga ubbi ma wala ma ubbi rek bu la neexee rek ñu de. <laughs> loolu ci def baax na ok oustaz. Hmm. koor ci lislaam mooy lan. Seydina Seynou. Hmm. alhamdulilah jasiila ma wasalaatu wasalaam ala rasuli rahma ma shaa'iri ali wa aimma wa ata ili xadimi rasuli alkaasul qumma wa atlubu ridaahu kama asla umral umma Seyna Ousseynou laaj ponk bu am solo koor ponk la ci ponk lislaam yi ni julli nekk ponk dem màkka nekk ponk wax sahaadatu an laa ilaha illa wa anna muhammad rasulullah nekk ponk natt asaka nekk ponk noonu la koor nekk ponk ginaa boo ko saatu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan teg ca iqaamu salaat teg ca itaaw sakaat koor mooy quatrième ponk ci arkaanu islaam yi muy ponk islaam te ponk yooyu Ousseynou mooy loo xam ne bu ko doomu aadama bi amut rek mënta nekk jullit day juróom yoo xam ni bu ci manqué te war a mën a am rek boo ko bàyyee bàyyi nga ab ponk ci ponk lislaam bi te loolu da lay war ay daan am ci yow. Hmm, kon ku mën a woo te wóoroo. da nga am ay daan. yu mel na. lu mel ni ci misaal subhaanahu wa taala day teg ay xadd. xadd mooy. Eh, ci misaal. Hmm. dañoo wax ni ñi nga xam ne dañoo war a woor nañu woor hmm. ñi mënut a woor te ñi xam ne am ngànt mu nga mel da ngaa feebar wala mel da ngaa tukki ñooña moom eh, kenn tegu leen ko ndax dañu koo mënut waaye ñi xam ni dañoo am. dañoo lànk ngir ni rek xam na ni koor lu war la weddi wuñ ko xam na ni am na waaye nag dañoo lànk duñu ko def ñooñu su fekkee dañoo nekkan ci état islamique état islamique dañuy wut ay ndaw yoo xam ni état bi moo leen yabal ñu dóor leen dóori yar du hmm. doon dóor pour gaañ waaye dóor leen dóori yar yar waaw yar leen pour xamal leen ni lii lu war a am la ah, dañ lay war a dóor ko waaw yar leen pour xamal leen lii lu war a am la hmm. su fekkee nag dañu leen koo def ñu arrêté xayrun suñu arrêté wul nag seen atte suñu bor subhanahu wa taala koy bàyyi ñaata yar lay doon comme bu dee waaw loolu nag nekkul loo xam ne sàmm ne xadd bi ni lii nanga war a dóor maanaam ko daal boo xoolee ci misaal réew mu ñuy wax Pakistan fan yi am na ci ay ndaw yoo xam ni dañoo bañan a woor hmm. te masoor nan mat a woor hmm. état ba ci am moo jël ay policier ñu jàpp leen duma leen hmm. pour duma leen duma yoo xam ne duñu gaañu waaye pour ñu yar ne xam ne lii ponk la bu ñu war a joxe kon li woor sëy naa day lu war ci ab julit moo tax ñu war koo def. oustaz jërëjëf ñëpp lu am solo as bismillah. donc si koor lañ nekk ñu xool koor yu jàpp nañ ne bëri na ay njariñ yoo xamante ni mën nañu si nekk la parce que buñ doon faram fàcceel la njariñu koor. Mm-hmm. ci yéen nga ñuy dikkal. waa jërëjëf soxna Asou ñu am xel bàyyi xel bu baax a baax ci ni. Mm-hmm. alquran ci dafa wax ni. yaa ayyuha llazina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala llazina min qablikum laalakum tattaqun loolu ma ciy teel. Mm-hmm. bi ñu farateeloo koor ba pare sunu borom ca dernier aaya bi sonaas laallakum tattaquun su ngeen wooree ba bisu korite ba war naa am benn sahaada bu ngeen am. Mhm. muy benn diplôme. waaw boobu nag day mel ni mooy li soxna asu laaj. Mhm. muy njariñ yi ñu war a def ba bu nu waree am diplôme boobu. Ah, muy la njariñ loolu mooy. Mm. koor mm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nit ki su fekkee woor na mm. day am ñetti yoo xam ne ma ngi koy def maam woor day jariñ. société bi al ijtimaaya ah di jëriñ a ruux muy yaramu doomu aadama waaye nag di jëriñ ci wàllu missin wérgu yaram ñett yi koor da koy jariñ lii rek jaran nañu woor lii rek jaran nañu woor ndax fu mu toll nii ijtimaaya bi te léegi docteur yi sax gis nañ ne euh, woor bëri na ay euh, jàngoro yoo xam ne uh-huh. da koy xeex bari na yu muy xeex loolu boobu lislaam wax na ko bu yàgg wallaahi asim mm-hmm. andi woon na ko bu yàgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne suumu tasixu su ngeen wooree rek da ngeen wér te loolu ku weddi isel. mais Oustaz sax xam naa bala ngaa gën a xuusee ci foofu. nga dikkaat ci li nga xamante ne laxalagum tattaxoon boobu. Mm-hmm. bari boobu nga gën ko faram-fàcceel askan bi nga xamante ne. macha allah fa tabaarakallah la ñëw dëgg-dëgg maanaa ñi duñ ko xam. ko xam ah, nit ñi mën uh-huh. boobu mu am na ñu bëri ñoo xam sama genre gi jëfandikoo wuñ ko. Mm-hmm. macha allah soxna Assa. Mm-hmm. tattaxoon ji moo ma ñor. laxalakum tattaxoon. xëy na kon ngir am mu ragal yàlla. diplôme ragal yàlla Seydina Ousseynou loolu li ma la ko mën a joxe misaal mooy. ci misaal Ousseynou fukki weer ak benn ña ngi jàng. fukki weer ak benn. ña ngi jàng fu mu toll ñun ñëpp waaw mm-hmm. ay élèves lan. Mm-hmm. bi ñu demee ba fukkeelu weer bi ak ñaar muy weeru koor wi ne. ña ngi def examen. ndeysaan fu mu tool nii Ousseynou ña ci examen bi ñun ñëpp ña ngi examen ci weer wi. ah yàlla nañ jàll de. yàlla nañ jàll. Mm-hmm. suñu demee nag ba weer wi dee. bañ ñi nag tey la ñu wari. su boobaa nag sunu borom foo war a yëkkat ay diplôme yoo xam ne ko am ñu ko war a jox. ñooñu mooy ñi xam ne ñoom la astu di laaj mooy ñi xam ni koor gi dañ doon taxaw guddi di wor bëccëg yi mooy guddi dañ ko daan naafi la du ñu nelaw di ci def lu ci yàlla digle jàng al alquran xasaayid istixfaar tahlil ak lépp luy lu baax ci guddi gi bëccëg yi tam ñu ci def lu man di sarxe di jël seen alal yéen yàlla wërsëgal di ko joxe ndax koor yëmul ci ñàkk lekk ak ñàkk naan rek loolu ci gën a néew Hmm. loolu ci gën a néew Seydina Seynu njariñ na lool njariñ dafa bëri trop hmm. su ko defee na bu bis boobaa ñuy wari hmm. sunu borom daal di jël ay diplôme nag daal ni diplôme bi Seydina Ousseynou Ndiaye laa ko jox muy diplôme bi Soxna Astou laa ko jox boobu diplôme nan la tudd moom lay wax sahaadu taqwa mooy ak yàlla wax ah, mooy taqwa ak ah, ragal yàlla ko defee Ousseynou Ndiaye téye na diplôme am Soxna Astou téye na diplôme am Oustaz Mbaye Ndiaye mi nga xam ne moom ragal woon yàlla ci koor gi deful woon li yàlla digle daanaka daal nit ñee doon woor muy woor nii rek hmm. su bis boobaa moom du am tisaare taqwa jàllut man dafa hmm. échec ci misaal exement bi man man jàllu ma man a bañ a ah, kon yéen jàll ngeen li hmm. ngeen jàll mooy li yàlla doon digle yëpp yéen a ngi koy def kon te taqoon ji dafa am solo bu ko defee bu koor gi jàllee sëy naa Sëriñ Njaay xool boppam bi mu xoolee koor gi ni mu ñëwee ba ni mu jeexe Ousseynou xool ni moom amul lenn sens ci moom amul génn ragal yàlla gu sensé ci moom. ah kon de koor ga su boobaa Ousseynou. Hmm. war naa taxaw. wallaay xoolaat boppam xoolaat boppam. ni kon man na laa doon woor damay faral di wax ni. Hmm. su fekkee dañoo woor ba koor gi jeex kenn ku ne ci ñun amul loo yëgal sa bopp ci ragal yàlla. Hmm. jërëtu ko. ok jëratu ko. Mm. kon asu. Mm. loolu moo waral sunu borom laalakum tattaquun. tattaquun ji nag a faram fàccale ci yu bëree bëree bëri. su fekkee ni waaye nag waxtu moo ko du may. dugg xam naa ah. dinañu ah. am beneen ah. euh, waxtaan boo xam ne xëy na dina di nga ci mën a dugg bu baax a baax. oustaz euh, damay ñëwaat rek fi asu wax. Euh, mm. koor ku nekk xam na ne wuute na ak yeneen weer yi. ndax nee nañ weer yëpp moo ci gën na yaakaar naa. wallaay wallaay wallaay ngëneel yi <laughs> ci la wàcc ak leneen loolu la bëggoon nga gën ñu cee dugal ak la xadar ak yu mel noonu. macha allah weeru koor day weer woo xam ne mooy weeru gën ci weer yi xam nga lu ko waral sahru ramadan allasi unsila fii alquran sunu borom dani weer waa ngi nii seen tërësoor yéen julli yi li gën ci yéen nga xam ne mooy seen nagu bët ci weer wi laa ko wàcce muy alquranu karim kon moo tax mu gën ci weer yi ba pare weer wi li tax mu gën ci weer yi guddi ci guddi mm. ci weer wi la wàcc muy guddi laylatul xadar mm. sunu borom wax ko. wallaahi ba mu ne sahru ramadan allasi unsila fii alquran weeru koor ci laa wàcce alquranu karim mm. ñu ne ko gan guddil. mu ne inna ansalnaahu fii laylatin mubaaraka. Mm-hmm. wàcce naa ko ci guddi gu ñu barkeel ci baneen saar la ko wax. Mm. ñu ne ko ba tey xamuñu nee nga alquran ña ko wàcce ci weeru koor waaye nag ginnaaw bi ñu wàccee ci koor jox na la question sunu borom nee na ci gan guddi nga ko wàcce mm. mu ni maa ngi ko wàcc guddi gu ñu barkeel ñun ko guddi ga lañ bëgg a xam nag mu doog ne inna ansalnaahu fii laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr wallaahi waaw kon gis nga ko mm. état bi mu jaar mu nekkul am solo mu nekkul am solo <laughs> uh-huh. waaw nga xam ni mm. wax na ni mu ko wàccee ak guddi gi mu ko wàccee mm. waaye ñun xam nañ guddi gi léegi ndax nee na laylatul qadr ci la ko wàccee laylatul qadr ci la wàcc alxuraan daal di ñëw nag ci ay wàccukaay yu wuute ndax na nga dégg ñu ne alxuraan ci guddi laylatul qadr la wàcce ci guddi gi la wàcc dëgg la dina wàcc jumlatan waahida nekk benn mbëbëstal rek noonu muy téeméeri saar fukk ak ñeent noonu la ko yàlla wàccee noonu ci guddig laylatul qadar mu jóge ci baytul ansita bi mu jógee ci laaxul mahfuz hmm. ah jaay ci baytul ansita doog wàcc nag ci sama u dunya ah, dégg nga waaw ñu doog cee jot nag hmm, hmm. bi mu nekk ci sama u dunya yi nag malaaka nañ ko téye foofu ah. jibril ah. sunu borom da koo dénk léegi bu ko defee bu yonent bi amee lu mu séq ak saxaaba moo xam ci misaal xeex wala am wala am lu saxaaba yi discuter juyee seen biir aaya daal di wàcc. Ah. ñu daal di bind. xam nga. wala ñu dem ba yàgg yéefar yi bëgg na julli yi. étape par étape étape par étape noonu la doon wàcc. Hmm. étape par étape aaya par aaya. Hmm. ba saar ba aaya ci alxuraan yëpp mat. Hmm. saar yëpp mat mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent. noonu la wàcc mu nekk lu am solo kon oustaz xanaa léeg-léeg ñuy faral di wax naan. xëy na ñu bëri lu baax ñu naan ah ñii kat bu weeru koor rek lañ koy def. ñooñu kon kon daal laaj boobu xanaa mën nañ koo laaj yàlla ndax eh, moom moo yemalewul weer yi ak beneen weer. wallaahi ndeysaan nag lu waay doon def ci lu baax xanaa weeru koor dañ koo gën a mën a wan weeru koor li mu gën ci weer tax na Ousseynou lu waaye def ci lu baax da ko war a yokk danoo laaj Aïssa ni ko nan la yonante bi mel ci yoori koor suñu yaay Aïssa radiyallahu anha mu ni Aïssa ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam nekk na ko tabe ñëpp xam na ko ndi jooram ak càmmañam ñëpp daan joxe waaye nag rawat na weeru koor da daan gën a joxe nee na weeru koor musaa ñëw du téye dara lu ñëw mu joxe ko lu ñëw mu joxe ko te loola suñu sang bi xaadim rasul si Ahmad Bamba roy na ko ci. bu weeru koor Moussa ñëw wax naa la ni bu jub lu ko waay laaj mu jox la jub laa la wax de waxuma bu ñu ci àggee bu jub rek lu ko waay laaj mu jox la <laughs> <laughs> daal leen xanaa gan gu tedd gii bëgg ñëw moom koy teeroo. ah suñu suñu suñu sëriñ tamit yaa xayra day fin ah yaa xayra day fin ata bil bisri wal madadi wallaahi ahlan wa sahlan wa tarxiban bil est mm. Mm. Ah? nga xam ni kon noon la teeroon gan nga mm. te kaay nag jamono yi mu koy teeroo teeru boobu moom teeru bu yéeme la sax moom Seexul Xadim ndax woote na ak fi mu nii ndax booba ci fi mu ko fekk yaakaar naa ni metti na trop anam ba mu ko fekk ci diggante yaari yaayoo yaa xayra def ak yaatal bu saaraati wax na ni diggante yaari yaayoo lekk ma fi naanu ma fi ndoxum cin maa lu mu toog ci cin musuma ko fi nga xam ne xobi garab la doon moocu bu mu saa dog mu saa jot hmm. ndax wi saa dañ koy tere hmm. muy woor ba ngoon nga ko ne sa koor te bëggut a def fi moo tax mu doo ko def xam bu ñu <laughs> <laughs> mu nekk lu am solo xam naa loolu moom bu ñu ko doon yaatal mën naa gën a yaatu asu dama lay jox rek ah, ah. nga daal di koy laaj euh, laaj bu mujj bi balaa gi ci wàllu mm. diine mm. incha allah rabbi di leen xamal ne jotaay bi am mm. di ko defee nii a yaatal ci lépp loo xam ne na li des ci weeru koor gi ñu tànn yi nga xam ne ni dañ koy laaj ñu koy ekkee oustaz euh, ngir ci gin asu boo dugg ci laaj ak bi ci diine ji waaw xam naa mu doon benn dénkaan boo xam ne xam naa di mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. am ci ñoo xam ni dafa nekk ci luq njuur wala muy def loo xam ne du lu baax. Mm-hmm. baati olof yi nag il ñu koy kii ndax. Ah, waaw la kii waaw loo xam ni eh, doo du lu gën. ba yàgg sunu borom gindi ko ca loola. Mm-hmm. am benn occasion bu ñëw mu gaaw profité ca dañ ko war a sant ca loola. Mm-hmm. dañ ko a sant ndax weeru koor weeru wu ni occasion la boo xam ne dañ cee war a profité. ah promotion la ndax eh, ñooñu di wax dañoo xamut ni sunu borom dafa am ñeenti bakkan yu mu wax. nafsul lawaama. nafsu amaara bi suu'i nafsul raadiya ak nafsul mardiya yooyu yëpp nag ay jaar-jaar étape la yoo usinu mhm. ay jaar-jaar la mhm. dafa am nafsu amaara bi suu mooy comme bi as wax léegi bakkan boo xam ni mu lay diggal mooy na ma yàlla baal nit ki agressel ah. kii mhm. kii jëlal kii nangam ak nangam defal lu bon loolu lay diggal waaye euh, bi ma ciy taxawlu ci mooy bi ës na nga xam moom boobu mooy bi nga xam moom lañ ñenn ñi jikk ba yàgg ñu daal ni nan def lu baax ñoom mooy la waama nafsu la waama mooy toog ba yàgg nga ni man daal li ma daan def war naa ko sensé nag. seet pexe sa moo lay yedd. wallaahi xam nga seet pexe ah nga nga xool pexe nag. ni man daal nag naa jël nag yoonu baax. wallaahi kooku dañ ko war a félicité. lu baax la de dañ koo war a félicité mooy masu lawaama. wallaahi foofu ngay jaar ak doog a dem ci masu mar euh, nafsu hmm. raadiya. Hmm. waaye yooyu yëpp ci gën nag mooy nafsu mardiya raadiya mooy dem nga nag yow ba gërëm loo nga euh, yàlla ba kuy ku bëgg ngërëmal yàlla nga yaa ngi ciy dox guddi ak bëccëg. waaye boobu ba tey doyut bi nga xam ne moo xadd kaaba gi mooy mardiya dem na ba su moom gërëm la ñeent euh, étape yooyu moo am waaw bu ko defee nag kon ñooñu di joxe ndogu ak yooyu am euh, ma dëkk fii Ousseynou waaw ñi joxe ndogu ak la ñu doon encourage ndax yonent sala sa dafa wax yow ni nit ki nga xam ne woor na ba ngoon nga jox ko aw ñam yoon bay wax wala nga jox ko mu naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon xam nga loolu mooy ndogu yi mooy suñu mbokki Baay Faal yi def ak ñeneen ak ñeneen yonent sala sam nee na malaaka yi ci am dañuy julli ci yaw ah, te ko sañoon malaaka yi julli ci yow. nee na malaaka yi dañuy julli ci yow. Mm. nee na yëmul ci julli ci yow mm. waaye bu ndee ba guddig laylatul xadar nag. Ah. nee na sunu borom day digal jibril ci am muy julli ci yow. te Oustaz jàppoon ne ñi nga xam ne julli ci yow teg ay kàddu daal bokkuñ ci ci ñi jox àtte ba humazatin lumazah. waaw waaw ba tey ci ñoo ci ñooñ lay bokk. ndax itam ci pour ñu ko xamul ah, humazatin lumazah waaw xam nga sunu borom dafa ni mm. mbugal ñeneen ñi nga xam ni dañuy gëstu wala ñuy yërndu wala ñuy eh, def loo xam ni seen yoon niwu ci sax li wax yor sab kilo di lijjanti liibaru jàmbur xam nga li ma la loolu mooy way lu likku li hummasatin lu ma sax waaw ñooñu mbugal ñeel la ñeel la leen ndax alxuraan dafa leer la ni rikk waay rikk waay bu leen di yërndu bu leen def tajassus te jësus mooy di yëndoo mooy Ousseynou Ndiaye mooy gëstu ci lan la nekk ak gëstoo ko waaw di ko gëstu ba xam ci lan la ne loolu te loolu moo fi bari fu mu nii koo gis muy dem rek mhm. di nga a gëstu ba xam ci lan lay dund bari fii la Ousseynou ni <laughs> a nekk lu solo xam naa waxtu bi mooy daw mhm. euh, insha allahu rabbi jotaay di dañ ko gën a yaatal ci kàttanu mhm. yàlla <laughs> oustaz ñu duggoo ci laaj bi ak tontu tontu bi mu nekk lu ñu baral ko tuuti rek. oustaz mm, mm. euh, pikiru ci weeru koor ndax day yàq koor wala déedéet. waa Seydina Ousseynou. Mm. pikiru dafa am ay étape. su fekkee pikir la rek buñ la pikir nii nga dem hôpital ñu pikir la nii rek. Ah. dañoo wax ni yàqul koor. Ah. yàqul koor bu fekkee ne pikir la boo xam ne day remplacer ndox. Ah. xam ne loo li nga war na naan. lu mel ni soyotaas. kon daal prévision day yàq koor waaw kay. mais pikir yàq waaw tere piqûre ko dañu wax ne lii remplacer ndox loo war na naan li nga xam da nga ko war na naan yow ci misaal ñu dolli la ko hmm. kooku moo yàq koor hmm. wala muy loo xam ne tam luy remplacer aw ñam la woo xam na nga ko war a lekk hmm. waaye am maa piqûre nii rek ah. kooku du ko yàq kooku yàq ko ah. jërëjëf oustaz ah. euh, sukran loolu leer na naññi euh, pâte dentifrice waaw pâte dentifrice tam nekkul loo xam ni day yàq koor waaye dañu koo sib gënut gënut maa bu fekkee da nga ko fàttee ci guddi gi. Hmm. fàtte koo def bu dee weeru ko daal def ko guddi moo gën. Hmm. bala ngay tëdd. Hmm. boo ndogoo ba pare. su fekkee nag fàtte nga ko. ba bët set. soo ko defee def nga lu sib sa koor nag yàquut. Mm. ndax caf ka yooyu nekk ci gémmañ gi. te am na pat yoo xam ne danoo danoo danoo saf. loolu la lislaam di bañ caf ka bi dem ba mm. dugg sa gémmañ mm. nga muucu ko wala yooyu mën nga dem ba wane ci dara. moo tax duñ ko sib kon. waaw jërëjëf yaa Oustaz loolu leer na Oustaz ñu ñëwaat euh, ci beneen laaj. boo xam ne fan yi daanaka xaw na nit ñu bëri ñu ngi koy waxtaane muy euh, maanaam ku am soxnaam. yàlla dogal ci bëccëgu weeru koor ñu li ñuy wax flirt ci tubaab. xeetu fóonante yu ndaw yeeg xeet yu ndaw euh, day yàq koor wala déedéet ci weeru koor ci ki nga xam ne sa soxna buñ koy wax nag yaakaar naa ki moom taxul ñu wax waaye ki moo tax ñu wax kooku dagan na waaye nag day am nu muy dagane ah ci naka nii lay dagane Ousseynou ah. yow góor gi nga xam ne yaa ngi ak soxna si nekkal koo xam ni yàlla dogal na ngay góor gu dul gaaw yëg boppam waaw xam nga yàlla dafa bind ay góor yoo xam ne dañoo gaaw yëg seen bopp bind ay jigéen yoo xam ne dañoo gaaw yëg seen bopp su fekkee waaw fekkee ne yow da ngaa bokk ci góor ñoo nga xam da ngeen da ngaa gaaw loolu day xaraam ci yow hmm. yow hmm. su fekkee da bokk ci góor ñi nga xam ni waxuma yëg seen bopp waaye lu ñu def mën na def sax ba génne ndox mi góor di génne hmm. kooku day xaraam ci yow su fekkee nag yow man nga koo def te dara du la ca fekk nga xam ne xëy na da wàcc soxna si gàttandu la nga akolaa ko ni kooku amul benn problème su fekkee yëgoo sa bopp amooloo ci centre amooloo ci yëg su boobaa yàqul koor gi hmm. amul problème hmm. waaye nag bu nu waddee rek daal ni yàqul koor hmm. day am fu nit di toll du yàq kooram am fu nit di toll mën a yàq kooram wallahu taala alam jërëjëf oustaz mu nekk lu am solo oustaz tey tamit euh, ñu xëy jàng ci yenn yu bëri euh, loo xam ne dañ koo fësal muy yenn soxna yi nga xam ne weeru koor bi dañuy jël ay piqûre sax ay comprimé ngir bañ weeru koor bi duñu gis seen ay règle ak yu mel noonu euh, am na benn oustaz bu ne dagan na waaye yow ñu bëggoon a am ci sa sa wàll rek ba xam loolu moom daggan na ci lislaam parce que am na oustaz yu ne dagan na am na yu ne daganul loolu yow lan nga ci wax. Euh, jërëjëf Seydina Ousseynou hmm. question bu am solo la. gis nga lislaam hmm. sunu borom du juum. Hmm. yàlla lu mu def rek am na lu tax mu def ko. jigéen ñi dañoo war a bàyyi seen mbërëg yi muy ñëw na ko yàlla tudde sunu borom moo wàcce ci ñoom woor wàcce ci ñoom julli. ci saa yoo xamee ni gis nañu ko ngaat na leen yàlla teg dañu ko war a nangu amaa nag di wut lenn loo xam ni benn médicament boo xam ni ci misaal da koy arrêté ba doo gis si weeru koor yi yàqul sa koor ah, yàqul koor gi moom ah, alaa kulli xaalin koor gi moom hmm. yàquut hmm. ndax le xool na ba xam boppam ni kii gisul lim daan gis hmm. koor ga moom am na fa ma nga fa ba tey ah, amaa nag bàyyi ko ni ko suñu borom doxale woon hmm. moo gën. ah léeg-léeg euh, xataayu jamono jeeg femme. Euh, déedéet Seydina Seynu. suñu borom moo ñu gën a xam suñu bopp tollu foofu wala. Seydina Seynu suñu borom moo ñu gën a xam suñu bopp. yéen oustaz yi nag ay planification familiale ak yooyu damay gis oustaz di ko contredé wala. waaw xam nga planique <laughs> euh, dinaa la ci kii tuuti sax xam na waaw xam naa vëñuñu ko. <laughs> waaw waaye ni ko Sénégal yi fa lañ bañ bi moom bu leeree tontu bi moom bu leeree mooy loolu yàqul koor. yàqul koor moom voilà. Uh-huh. yàqul koor moom. Uh-huh. yàqul koor. ko def itam. Mm. ba koor jeex te gisoo dara. yaa góor njëkkaam waaye nag ala kulli xaalin. li hmm. suñu borom dogal ci yow nga bàyyi ko. dafa gën ah waaw bu ko noonu <laughs> waaye yàqul ah, xam naa loolu lay doon waaye yàqul koor ma et puis hmm. bu ñu xoolee ci wàllu misin ndax dégg naa ci wàllu misin ñu wax ne am na tuuti ay conséquences yu mën a defal doomu aadama ah te xam nga kon li ma la doon wax day dikk waaw l'islam daal ah, nekk ah, naa gis loolu waaw hmm. lu ko rek am na lu tax loola moo gën waaye nag kooram baax waaw jërëjëf sa xam naa laaj bi moom la ñuy jeexale mm-hmm. ñu laaj boo xam ne nag mi ngi bàyyeekoo mm-hmm. Euh, ci Moussa Ka wa ah. euh, Moussa nekk ah. caméraman ci kër gi moom nag day laajte mm. oustaz mu ne kii mm. euh, benn jigéen la boo xam ne soxnaam da koo soxla mm. borom këram da koo soxla ci biir weeru koor yi te moom dafa woor nu muy def léegi su fekkee moom mu góor mi <laughs> la ko teree woor sax la war a njëkk a wax mm-hmm. ndax woor moom suñu da ko farataal ci moom boo feebarut tukki woo. man kaana min kum marida ku jigéen ki moom feebarut di woor na. su fekkee dafa feebar ku jigéen feebarut. muy ci weeru koor. xaraam na ci moom mu di ko jige ah. ci wàllu sëy. Ah. xaraam na ci moom. ndax léegi jigéen bu lànkee tamit mbaa lislaam du ko ci am nu ko ci teg ay. bu lànkee lislaam ko ci bindal tuyaaba sax. Ah. Mhm. maam bu lànkee moom. bañ borom këram boobu àgg ci kawam ci bëccëgu weeru koor lislaam da ko ci bindal tuyaaba sax nag mhm. ndax. weeru koor day farata Seydina Seynu mm-hmm. te lii mu bëgg moom mm-hmm. mbir la moo xam ni manees na koo jëfandikoo ci heure bu ne mm-hmm. te weeru koor wenn weer rek la i ka xam li ma la wax fu fekkee ne koor ngàtt nga la nga xam ne ci misaal Seydina Ousseynou Ndiaye dafa am soxna euh, benn bis ñëw mu ne damaa bëgg a woor alxames wala altine comme ni ko yonante baaxoon defee di woor alxames altine Ousseynou Ndiaye tukki ba ñëw wala mu dem fenn ba ñëw ñëw fekk soxna si woor bisu altine wala bisu kii mu ko ah laa soxla de bu waa soxna si day dox kooram. day dox kooram kon daal bu dee koor yu farata waaw waaw yu mag yi. waaw kooru mm. farata moom. loolu moom jëkkër kenn sañu cee dogloo. Mm-hmm. kenn ku du subhaana wa taala muy feebar wala tukki mm-hmm. waaye bu dee kooru ngàtt ngaa moom. Mm. sañ dañoo wax sax ni sax surtout suñ te woor kooru ngàtt nga loolu da laa Ousseynou damaa bëgg na woor suba mm. bu la joxee ndigal ndax xamoo suba di nga ko soxla am déet moo tax euh, jërëjëf yaa oustaz yaakaar naa ne tey loolu lañ tënkoon ci laaj yi nga xam ne lépp jëm na ci wàllu koor gi yaakaar naa laaj yi xëy na euh, yaakaar nañ ne am na solo ci yi nga xam ne nag fatabaarakallah ñooy bàyyi xel jotaay bi <laughs> euh, tey rek nekkoon ak tënk goo xam ne fu ñu fas yéene ànd ak bi mm. lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu diine ak yu ne mel fatwa bi ñu koy leeral ndax mm. ñun amuñu lu dul diine ji mm-hmm. yaakaar naa ne lu am solo la bu baax a baax ñu koy amal ci 24 actu soxna su waxtu bi jeex na ma bàyyi la nga tàggoo

mos googu am ko sib ndax nee ku yàgg a ku yàgg a war ngaa mën a xam ni muy mel ak waaw ñoom foofu ah, ah, ah, ngay soxla ci nii ak ne xam ne ko sib waaye laa kuli xaa su fekkee yow xam ni ngay comparé sa xorom wala sa yooyu musal te fexe mu bañ a jàll wallahu taala alam. Ah. ci leeral yu am solo yi mm. am naa ñu jaar fi tàggoo waale rek mm. di wax na émission moom macha allah am na solo mm. jotaay ko nii rek lay doxee saa su nekk di sant bu baax di gërëm suñu euh, oustaz bi oustaz Mbaye Ndiaye mu nekk oustaz bu ñu ràññee loolu di wax ne yàlla suñu borom gën a yokk xam-xam bi amiin amiin liñ ciy bëgg yaa ko xam yàlla na ko suñu borom defal di sant El Hadj Ousseynou ak suñu mbokk caméraman yi Seexuna Ndiaye sëñ bi Jaxate ak euh, musa Ka ak Xadi bi nga xam ne moo jàpp ci montage bi ñu leen jox dig daje wasalaamaaleykum wa Soxna euh, kàddu yi am na solo euh, euh, mu ngeen am rek mi ñu am ak raw ndax 24 actu yi suñu kër la suñu kër la te émission bi itam émission bu am solo la émission bu ma neex laa tam kontaan naa trop itam ci invité gi ngeen ñu invité lépp doon diine rek ak actualité ndax jamono tool foo xam actualité dafa am solo. di la sant bu baax a baax a baax euh, ci émission bi waaye di la sant itam ci taxawaay bi ni mu rafete macha allah di sant bu baax a baax itam soxna Asou moom itam macha allah fa tabaaraka ca question yi ndax yéen ñaar ñëpp question yi doon na kii gën naa sax mu gën a yaatu gën a gën a gën a dal ndax man daanaka yooyu amu ci muskila amu ci problème <laughs> fa tabaaraka la lu ngeen ma ko gën kiit waaye ñu ngi gër sant yi gërëm daal baax a baax a baax. question yi am na solo ndax question moom day dimbali sax kiy tontu te na ko kook di tëggee te tëggin yi tëggini question yi bàyyi nañ ko xel lu am solo la di sant cameraman yi di sant borom kër gi in uridu illa mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa son intitulation moom Fatou Kébé mbégtali ñoom bu baax a baax borom xam-xam bu mag la tey ñu ñëw wuyu si ñu bàyyi lépp ngir lépp rek lépp diine tax koo waaye lépp itam ñi nga xam ne dañoo sàppoo seen diine di diine ko ñu toll te xëy na ñu mel nii day ñu nga xam ne ñu ci ñëwee rek ñi nga xam bu baax a baax ñu koy sant baax di gërëm Moussa Mbengue sant ak moom ñi nga xam ne moom bu njëkk jotaay bi Thierno Ndiaye ak équipe Thierno Ndiaye moom mooy a mooy généraliste waaye nag ñu génne cameraman yi ñu ngi lay sant baax di gërëm sant seen Moussa Diagne sant tamit seen jaxte ak suñu jaxte dafa rapport waaye ñu ngi koy sant baax di gërëm soxna Sabina émission bi bu jàllee ba montage bi rafet loolu moom dañu koy sant baax di gërëm sant Awa